waaw damay remercier conseil bi ci daje bi nga xam ne nangul nanu ma ko pour ma wax leen lan mooy PUDC lan la ci nekk lan la ci président jub siwul jub jublu woon jéego yi ñu def ci wàllu euh, soppali ak euh, gën a defar nekkinu waa kaw gi euh, ci loolu nag. Euh, wax naa li nga xam ne moom la ñu def ñu rafetlu ko ndax euh, loo xam ne la ñëpp koy dund ñëpp a koy gis en tout cas ñu nekk ci kaw gi muy loo xam ne coppite bu mag a mag la boo ko méngaleeg li nga xam ne moom lañ fi jot a def ci wàllu woowu wàllu euh, piste rurale wàllu courant électricité wàllu forage wàllu château d'eau ak yi demee noonu bon nag waaye nag ba tey ñu am na loo xam ne lu ëpp lu ñu ma ci wax. wax ngeen jafe-jafe yi nga xam ne mooy wàllu conditions yi nga xam ne moom la nit ñi di exploiter électricité bi war nañu ko améliorer euh, soppi ko te président loolu la ñu mu ne nañu woyofal mbir mi ba nit ñi mën cee jot. am na lu nga xam ne mooy wàllu communication PUDC man nangu ne am na war nañ cee gën a góorgóorlu gën cee xarañ parce que am nañ ci retard. bien bientôt un an am na base boo xam ne war nañ ko am muy film boo xam ne traduire nañ ko ci làkk yëpp film bi pare na am na aussi site internet daanaka pare na tey la ñu ma yónnee plan de communication bi pour ma valider ko bu neexee yàlla dinañu ko def ci fan yi di ñëw. jéego bu am Casamance ñu boole ko ci ndax bokk ci woon euh, Casamance président dafa waxoon ne def naa lu bari ci wàllu tourisme def naa lu bari ci wàllu transport am naa programme boo xam ne pôle euh, Casamance la tudd euh, pour développement li nga xam ne moom mooy yokk koom-koomu Casamance waaye président daal di wax ne loolu dootul doyati sax dama leen di boole ci PUDC ndax gaaw bi nga xam ne PUDC gaaw na ko ndax dafay bañ ëllëg PUDC sottile PPDC wala leneen mu yéex nu jàpp ne xëy na. dafa amul bët ci Casamance dafa euh, amul attention ci Casamance te li muy def ci Casamance wax dëgg yàlla muy ci wàllu euh, exonération fiscale bi nga xam ne am nañ ko ci wàllu tourisme muy ci wàllu transport ni muy yombalee léegi bato bi ba bato bi léegi ñetti bato yi dem waaye dangay def réservation une semaine ba ñaari semaine pour mën a dem am na ñetti vol yoo xam ne day am ci journée bi di dem Casamance vol yëpp di fees bon nag Casamance mën nañ ne suqaleku nag ndax effort yi nga xam ne président de la République def na ko fa digal yi nga xam ne président digal na ko ministre am yi pour ñu def ko ci wàllu effort ci Casamance luñ ci zone yi nga xam ne ñoo nekk ci frontières yi pour ñu gën a sentir seen bopp Casamance waaye am na loo xam ne def nañ koy tamit ci wàllu ir à morphile région frontalière yi nga xam ne moo nekk ci noor bi euh, muy féete ñu wàllu Mauritanie ak zone yi nga xam ne mooy wàllu Guinée muy Kédougou Saraya Salémata booy seet président ñooñu la gën a jox priorité ak waa Casamance si tamit parce que ñooñu dama wax ne dañ leen a mës a fàtte ndax bi tubaab bi ñëwee euh, il y a quatre dafa installé wu ci côte yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci côte bi mu développé Cas Ziguinchor mu développé Dakar développé gore développé Saint-Louis dëkku intérieur bi ñu fàtte ko nit ñi di ñëw fii di nawetaan di liggéey di ñibbiwaat loolu la président wax ne yàgg na trop ñu fàtte waa kaw gi dañ leen di dañuy corriger inégalité yooyu ak ñàkk gi fa ne ñu jéem a améliorer li nga xam ne moom mooy seen nekkin président loolu la wax. dinañu def tournée. dinaa commencer tournée campagne boo xam ni tournée d'évaluation la pour vérifier sites yi nga xam ne ci la ñuy liggéey waaye tournée boo xam ni tamit damay dajeek askan wi dajeek euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy responsable locaux yi muy responsable associatif yi responsable lu diine yi pour waxtaan ak ñoom gën leen a xamal lan mooy PUDC ak njariñ yi